Voilà, de retour sur ce plateau pour débriefer ce match d'ouverture entre le Cameroun et le Burkina Faso. Les Lions indomptables s'imposent pour ce premier match d'ouverture sur le score de 2 buts à 1. Score donc euh, avec deux pénalties réalisés par Vincent Aboubakar, donc euh, le capitaine de ces Lions indomptables, même si le Cameroun avait concédé le score euh, dès euh, la dixième minute, but inscrit par Sangaré. Mais les Lions indomptables ont su se révolter et permettre donc euh, à leur pays de connaître une première victoire euh, dans cette Coupe d'Afrique. Alors, euh, pour débriefer ce match et se projeter également sur le match à venir entre l'Éthiopie et le Cap-Vert et parler évidemment de notre équipe nationale du Sénégal, Cher Tidiane Diawo m'accompagne. Cher Tidiane, rebonsoir. Bonsoir, rebonsoir, Tala. bonsoir maam bonsoir les deux cheikhs. oui cheikh bonsoir. <laughs> bonsoir. dañu naanagul ataaya nag. <laughs> Ah, waaw waaw waaw xaw euh, par yow match bi nan nga ko jàngatee techniquement on est resté sur notre fin. oui techniquement on peut dire qu'on restait sur notre fin parce que gis nañ équipe bu burkinabé boo xam fi ñu ko doon xaar peut-être ñëw fa. Mhm. donte match bi yomboon na si moom. lu tax mu mhm. yomboon si moom dañ gis Cameroun boo xamante ni. dafa ñëw indi système boo xamante ni presque 3 cinq 2 mhm. yombal ko lool si ñoom parce que bu fekkee da ngay football 3-5-2 ñoom euh, seen ay latero di dugg si biir di bàyyi Alain Traoré muy def un contre un. Mhm. ak leur ak centre euh, ak seen ak central doon na yomb mhm. si ñoom. même boo gisee bi bi bi ñuy dugal euh, si côté yi lay jugee. traversé ñaar ba ñetti yoon. Euh, du am dara loo xamante ni dina ko mën a fànq pour bal bit ba na dugg. en plus de cela góol bi def na ñaari erreur ci même action bit boobu ñëw mais Camerounais ci instant boobu aussi yeewu na parce que yeewu bi mooy entraîneur bi teel na xam ne ni 3-5-2 bi arrangé wu ko. ci saa si nag entraîneur booy football système boo xamante ni arrangé woo noo def mooy soppi mais soppi du gaaw da ngay jéem a taqale si instant bi ci instant juste lu def mooy changé son. 3-5-2 à un 4-4-2. mais gis nañ bi mu dawalee 3 minutes ba réagir bu baax gis nañ mu soppi équipe am. Mhm. def ko un 4 1 4 1. en plus de cela gis nañ jour bi nga xamante ni moo nekkoon ci milieu de terrain bi di Anguissa xam ne si dafa nekkoon ci kanamu défense bi amul woon njëriñ équipe bi sur le plan offensif. mais gis mhm. nañ bi nga xam Gouye dem na ci ginnaaw moom mu dem sur le plan offensif apporté la équipe bi. pour wane leen équipe bu Cameroun bi gis nañ ni sur le plan tactique doon na varié même si fin bi sax bi nga xamante ni def nañ ay changement gis nañ mu doon équipe boo xamante ni encore delluwaat na temps en temps sur un 4-4-2 lu ñu si mën jàng rek surtout sur le plan défensif ak système bu Cameroun doon football tey ñu doon gis à chaque fois bu yorul bal milieu terrain mu doon wéet. au moins dana am foofu ñaar wala wala wala ñett en plus de cela bu fekkee équipe adverse moo yor bal aussi sortie de balle yi tey moo tax yombalul ko woon burkinabé parce que au moins di nga doon gis au moins ñaari joueurs ci kanamu la défense euh, burkinabé ba nga xam sortie du yomb pour wane ne donte tey gis ñu burkinabé bi doon fubal mais aussi Cameroun ñoo leen ko may noonu euh, Burkina taxawaayam ak euh, problème peut-être animation de jeu parce que dañu ñu ngi gis Bertrand à chaque fois da doon répliquer euh, un peu au, milieu de terrain est-ce que tey comme ni nga ko waxee un peu euh, amoo je veux dire déception ci li nga xam ne kanam xar kanam gi Burkina wane. waaw xam nga am naa déception parce que waxoon nañu ko fi bu fekkee da nga yor ay footballkat yoo xam ay xale lañu en face nga yor ay mag yoo xamante nii tamit athlétiquement danu foor je pense que li ngay war a def mooy laaj bal fu bal si bal si espace lu bari. mais tey gis na ni kii di Traoré doon laaj bal si tànkam euh, Tapsola mooy seen avant centre bi il était esselé mais itam li ma si gën a jaaxle mooy dama doon gis Traoré ak Sangaré ku ne mel ni da nga bëgg def match par force ñoom ñaar parfois ñu doon jegeyantoo trop. Mm. donc ce qui veut dire que duñ amuñu benn yoon boo xamante ni si ay intervalle wala si espace inquiété nañ la défense camerounaise euh, surtout bi nga xamante ni footballé na à 4 je pense que manque de variabilité variabilité boobu si footballu Burkina bi tey yombal na. Cameroun yi tey ñu mën a door 2-1 mu score bi sax je pense que mënoon na. gën a ëpp ñaar yi. Mhm. dëgg la alors euh, Cheikh euh, oui. mais aussi euh, je pense que ton match bi ça a été donné euh, dès la première minute du jeu. où euh, le Burkina a failli se retrouver à 10 parce que action boobu mhm. euh, mënoon na doon carton rouge je mhm. pense que même après Cameroun tamit def nañ même genre faute bi euh, ça mhm. n'a pas été sanctionné mais tey match bi soo xoolee da ngay sentir ne que excès d'engagement joueur burkina yi moom moo moom moo leen porté préjudice à la fin parce que ñaari penalty yi ñu concédé euh, Bertrand mën nañ ko wax ne attaquant la peut-être que il a extrêmement mal défendu ci surface de réparation bi deuxième penalty bi aussi le défenseur qui tacle en retard alors que le gars pratiquement perdu le ballon je pense que loolu bokk na ci li yàq seen match carrément mais mm-hmm. en temps match bi on voyait que le Burkina quand même était euh, vraiment un tout petit peu supérieur quand même au, au Cameroun techniquement, ouais, ouais, techniquement ouverture du score très méritée peut-être que même mënoon nañu enfoncer le clou Mais Surtout que c'était voilà. pendant leur temps fort voilà. qu'ils ont marqué ouais. le but là. Donc ouais. la balle, au moins il y a eu ouais. sur ce, ce, sur ce but. Succession d'action. Trois centres yoo xam ne yu nekkoon dans les 6 mètres. Et donc moment boobu Cheikh même il disait que ne c'est sûr que ne lii mënul mujjee lu dul ci but. Mm. Et donc quand on a vu l'adresse technique de Sankaré. sur ce but-là c'est pas un but donné à tout le monde mmh, donc il fallait ah. vraiment être adroit et très bon techniquement par rapport à la coordination ci sa yaram ni ngay defee ba mettre bal bi sur le plat du pied def ko fi nga xam ne moom nga ko bëgg donc sur ces moments là on a senti quand même l'équipe Burkina l'équipe du Burkina bien en place ouais, ouais. et qui pratiquait du bon football mm. et, je pense que c'est ça qui leur a permis même de mener au score là, ils les pénaltys à deux moments clés du match e 45e ouais, et comme tu disais cher c'était c'est-à-dire qu'il y a eu à moment donné un excès d'engagement donc le match était très viril tu sentais que de part et d'autre c'est même s'il y avait un contentieux en l'air qui planait sur ce match-là c'est-à-dire que l'avant-match c'est-à-dire que par rapport même aux tests et tout on peut soupçonner que ces jours-là étaient vraiment sur les nerfs que, voilà ils sont motivés et donc motivés. donc c'était l'excès d'engagement parce qu'il y a eu des foot qui qui, qui n'avaient pas leur raison d'être à des moments précis on sentait qu'il y avait toujours de la tension de l'agressivité et donc par moment aussi ça leur a porté préjudice mmh. donc du coup c'est vrai que les les, les Burkinabés s'étaient vraiment donnés corps et âme sur ce match-là pensant qu'ils pouvaient faire la différence mais bon, ils l'avaient fait hein. malheureusement oui. ils se sont tiré une balle dans le pied ouais. aussi oui. parce que avec euh, ces erreurs défensives ouais, quoi largement absolument, évitables absolument c'est-à-dire que c'est des ballons où ils arrivaient tout le temps en retard mmh. et à partir de ce moment tu te retiens mmh. tu fais pas la faute dès mm. l'instant que tu arrives en retard dès que tu mets le pied Donc tu risques de faire une faute. Mm -hmm. À partir de ce moment, l'arbitre dans dans cette zone-là, il siffle penalty automatiquement. Je Donc, pense a... qu'ils ont comme tu as dit, ils ont mal défendu hein. Je pense que mm -hmm. sur mhm. le premier penalty, je pense que Traoré il euh, il défend mal. il défend mal il le ballon ouais. sur le deuxième penalty en plus un défenseur c'est une faute élémentaire. on, oui. on demande au défenseur de défendre debout. Euh. il, avait déjà fait un centre il avait perdu Absolument. ballon. Euh, je pense que ils ont eux-mêmes ils ont perdu le match. très bien donc Burkina mën nañu wax ni que peut-être du ñàkk doole moo ko ñàkk loo mais peut-être ay propre fayam ñoo ko ñoo ko ñàkk mais ci taxawaay. équipe camerounaise bi nan nga ko gisee parce que gis nañ que capitaine bi tey Vincent Aboubakar daanaka les meilleures actions les actions les plus dangereuses moom moo ko am te moom daanaka mag la parce que boo gisee nga xam ne kii. kii mu en Arabie Saoudite voilà exactement. <laughs> est-ce que est-ce que est-ce que bi impressionné la la wala am na lum la bàyyi comme euh, comme effet. cest dire xam nga équipe bu Cameroun même bu mu doon jouer cinq 5 parfois dañuy wax euh, jeu de position si tubaab bi dañ koy gën a gisee maanaam bu ñu yoree bal ñu jegeyantoo Euh, parce que boo gisee Aboubacar si match bi amul benn yoon boo xamante ni kii di Ngamala bi muy fubal si milieu bi sori na ko kii di Toko bi muy fubal si kanamam aussi sori na ko même bi ñu dellu see si un système de 4 4 4 1 4 1. wala 4 4 2 ba tey amul benn yoon boo xamante ni ay jouram sori na ko jour nag bu fekkee da nekk mag am ñoo xam dañu lay jege ngay tàppe si ñoom. Mhm. di di fubal dafay dafay yomb. Mhm. alors que par contre burkinabé yi loolu la amuloon c'est-à-dire li ma xaw a jaaxal rek. mooy euh, je j'avais pas compris l'intention du coach camerounais en première période avec un 3 5 bu ñu gisee Faye ak euh, football na presque comme mhm. piston durant 45 minutes deful benn centre mais quand il s'est retrouvé comme latéral il avait apporté ses arguments de même que Anguisse bi nga ah, xamante ni mi football devant la défense il avait rien apporté en deuxième période bi mu changé système commencé na ko apporter je sais pas si piège la woon pour moom en début de match mais parfois ñun entraîneurs yi parfois ñuy luxu sax sincèrement parfois ñuy luxu mais j'avais pas du tout compris ce système de heureusement qu'il a très bien compris avec son staff ils l'ont changé mais tey Cameroun ar na ay argument yoo xamante ni mën nañu wax ni sur le plan physique sur le plan tactique ay jouram adapté nañu si presque en 90 minutes nga changé presque benn ñaar ba ñett yoon si système hmm. mais aussi burkinabé yi ñoo xaw a bàyyi seen match lu tax ñu bàyyi seen match mooy équipe bu physique comme Cameroun ñëpp xam ne physique la am nga bëgg laaj à chaque fois bal si sa tànk def ay confrontation ay duel après da ngay da sonn hmm. je pense qu'il c'est-à-dire que bu ñu la posé les équations tactiques. Mhm. ba nga gis ne fi mu nekk nii affaire bi doxul. léegi est-ce que yéen ci seen mise en place parfois da ngeen di def schéma yooyu c'est-à-dire que au moment où on est mené par rapport à tel schéma tactique qu'est-ce qu'il faut faire est-ce qu'il faut réajuster ci saa si wala da ngay xaaraat ñu demaat ba ci kanam parce que am na ci ñoo xam ne. du ñu changer du ñu changer dañuy nekk ci seen ay convictions. gëm ne affaire bi normalement sa doit pouvoir sa faire alors que normalement équation tactique boobu suñ la ko posé lee ba mën a la ci au score war nga mën a nag am humilité wu ne xaaral ma dellu siwaat à mes à mes à mes propres premières convictions quoi. Mm, mm, mm, mais mais par contre je vais juste dire une chose j'ai l'impression que c'est une équipe qui qui change beaucoup de système. Mm-hmm. parce que démb en conférence de presse Vincent Aboubacar wax na ko. Mm-hmm. nee na ñun dañuy jouer système yëpp parce qu'on a les joueurs capables de donc ça c'était juste une petite contribution. Ah, bàyyi système ñu door a 2-0 fekk sax du si système bi peut-être ça peut-être des failles individuelles. Mm-hmm. défensives replacement bu baaxul mais tey ñëpp gis na ni euh, si Burkina avait marqué un but c'est parce que euh, les lat les excentres les latères les les joueurs dugg si biir euh, par exemple ku mel ne euh, Traoré day dugg si biir carrément il laissait le ballon aux latéraux lan mooy am foofu te doon am à chaque fois un contre un. bu amee si une défense à trois amul couverture. Mm-hmm. moo tax nga si biir bi bal bi traversé na benn ñaar ba ñett soog dugg. Mm-hmm. mais là mais là l'entraîneur l'entraîneur il se dit que mais là j'ai pas de couverture. et ñi xam nañ kon li may def ils ont des jours très déséquilibrants léegi li ma mën def mooy éviter la l'infériorité numérique wala éviter l'égalité numérique dans ma zone mmh. lan moo koy lan moo koy indi mooy nga tegaat foofu beneen défenseur boo xam ne au moins dan assurer les couvertures ak euh, les permutations je mmh. pense que adaptation boobu euh, non seulement entraîneur da koy liggéey mais aussi si xel ak ñi ngay toogal si banc bi ak ñi nekk si tribune bi parce que aussi staff mhm. parfois du rek ñi nekk si tribune bi mhm. du nekk nit ñi toog mais am na ñu nekk si kaw ñoo xam parfois mhm. minute bi match bi daw ñu ngi lay wan ay image yoo xam pour nga rek kiifee mais je pense que football toll na foo xamante ni aussi dafay dafay laaj loolu dafay laaj loolu très bien en tout cas aussi faut se féliciter euh, de cet exploit du Cameroun parce euh, par une victoire, euh, ce qui n'était pas donné devant le président de la République, devant, leur public, devant, devant les le plus hautes instances de la, voilà. du foot ouais. mondial. En plus, tu concèdes un but comme ni ñu ko doon waxee ni équipe la boo xamee ni lu ci ëpp ci seen doole ci mental bi la. mental ils ont concédé un but en étant un tout petit peu dominé. dominé même mais taxul ni. jéem nañ ko lijjanti ba teguwaat ci match bi surtout avec le capitaine qui a été élu homme du match. Mm-hmm. Euh, ah euh, c'est mérité voilà ah, Vincent Aboubacar. da nga koy xool tu sens que ce monsieur-là en veut. et il a confiance en lui et l'entraîneur <laughs> a eu l'audace de mettre Choupo-Moting sur le banc. Mm-hmm. mais à un moment donné il s'est dit écoute mon gars je t'ai donné ta chance. Toko et Kambi. Mmh. Euh, ah, ça n'a pas été très très brillant. Non il a été même l'ombre de lui <laughs> Toko que je vois à Lyon et celui hmm. d'aujourd'hui, il a un fossé. Hmm. Mais il n'a pas a pris ses responsabilités. C'est un match qu'il faut gagner. On joue à domicile, on joue chez nous. C'est une Coupe d'Afrique, c'est un tournoi. Il faut se rassurer hmm. devant son propre public et ne pas laisser le doute persister. Et à partir de ce moment, quand tu vois choupo jouer, Ce qui est sûr, c'est que le prochain match, il sera titulaire. Par rapport à sa prestation d'aujourd'hui, okay. ce qu'il a montré, franchement, si moi je suis entraîneur, je le reconduis pour le prochain match. Qui Qui Choupo Choupo Ah bon Ah oui Est-ce qu'il a est une question de par, par, par, rapport à sa prestation d'aujourd'hui, ce qu'il a montré, mm. euh, la disponibilité, le jeu, l'appui qu'il a porté sur le plan offensif, moi, je me dis, il a sa place pour jouer. Oui, mais tu mets Choupo, peut-être que tu te prives de Vincent Aboubakar. Voilà, c'est ça aussi. Ça le à partir problème. de ce et, moment. Aboubakar, dans, dans, dans, dans, cette équipe, dans ce 11, je pense qu'il est un, un Oui, mais, mais, tu sais, euh, même dans ce cas de figure, euh, oui. tu peux faire jouer euh, Choupo derrière le deuxième attaquant. Ah, c'est vrai que lui aussi, Les dernières minutes, c'est a fait. C'est possible. Les dernières minutes, comme si c'est un 4-4-2, mais avec Choupo comme euh, si le Cameroun qui engrange les trois points et qui certainement a fait un gros pas en vue de la qualification euh, pour, pour les huitièmes. Euh, donc, euh, petit groupe A, Bobo, dans moins d'une demi-heure en tout cas à peu près une demi-heure euh, Éthiopie ak Cap-Vert euh, dinañu euh, daje muy mboq ñaari ñi nga xam ne mun nañ leen considérer comme des challengers dans cette poule alors si on voit bien l'Éthiopie géejoon na un peu coupe coupe d'Afrique bi yoon toog na depuis huit ans Éthiopie <laughs> dugul ñëwul coupe d'Afrique mais ren ñëwaat na ku mel ni Cap-Vert aussi raté na ñaari. édition yu mujj yi nga xam ne euh, donc euh, def nañ ko ci kan bi ñu fàttali ni ñoom def nañ fi quart de finale 2013 ak premier tour en 2015 bon ce sont deux équipes peut-être le cap on connaît un peu plus l'Éthiopie on entend parler oui. <laughs> maintenant je sais pas cher est-ce que de toute façon, vous savez, le football moderne aujourd'hui, euh, il euh, n'y a pas de petite équipe, même s'il y a des équipes qu'il faut donner beaucoup plus de respect. entre l'Éthiopie et le Cap-Vert, je pense que le Cap-Vert a beaucoup plus d'arguments, que ça soit mmh. technique et tactique. Mmh. Sur les derniers matchs, même si le Cap-Vert ne s'est pas qualifié sur les derniers cas, on a vu toujours un Cap-Vert qui, a essayé, aussi de jouer de progresser. Et avec la neutralisation de certains jours aussi, je pense euh, qu'il s'est qualifié en Coupe d'Afrique, mm-hmm. ça sera pas évident dans le groupe euh, où, il, où, il est, mais je pense que c'est un c'est un c'est un match comme le match que nous avons que nous allons que nous avons vu tout de suite ça sera un match un peu ouvert euh, sauf que l'avantage je pense au Cap-Vert. Ouais, tout à fait alors euh, Talla tu... Oui, moi je penserais pour euh, pour le Cap-Vert parce que le Cap-Vert pour moi est beaucoup plus expérimenté aujourd'hui euh, par rapport à l'Éthiopie même si l'Éthiopie c'est euh, une grande nation quand même quoi qu'on puisse dire. Mais le, le, le Cap-Vert dispose aujourd'hui de joueurs qui jouent un peu partout. Mmh. Et euh, des garçons qui nous ont tenu tête par moment, mmh. ici même à Dakar, Dakar, ou chez eux, donc, euh, et qui ont maintenant euh, le goût d'aller régulièrement en Afrique et de se frotter aux, aux, aux, grandes nations du football. Parce que maintenant, le football, avec les nouvelles technologies, on peut apprendre de tout sur l'adversaire, on peut se préparer en conséquence, on peut, mhm. on peut chercher comment trouver la faille. qu'est-ce qu'il faut pour déstabiliser ou chercher le déséquilibre euh, devant. Mm -hmm. et, et, je pense aujourd'hui toutes ces équipes qui sont là méritent leur, leur qualif et, et, je pense que c'est un match qui sera ouvert. Mais bon, je penserais par exemple euh, pour euh, le Cabaret. Tout à fait. Oh. Alors, on va euh, peut-être parler aussi de notre équipe nationale, même si évidemment tout à l'heure, euh, dans Soir de Cannes, c'est le rendez-vous qu'on vous euh, donne aussi durant cette compétition. Tous les soirs, un soir de Cannes pour vous faire le point sur euh, donc les rencontres du jour, mais aussi évidemment euh, parler de notre équipe nationale. Vous le savez, hein, l'entrée en lice des Lions, c'est demain à partir de 13h temps universel devant, devant le Zimbabwe, dans un contexte très très particulier. On le sait, hein, 9 joueurs euh, absents déjà de but en blanc pour, pour commencer. Euh, donc, euh, ñu wax tuuti suñu équipe nationale ak information yi nga xam ne ñu ngi koy jot nank-nank euh, depuis bi ñu jugee Euh, Dakar ba tey euh, maanaam mënuñu ne cluster mais Covid dugg na bu baax ci ci tanière bi ba ba ba ba ba sax xam nga perturbé euh, coach bi bu baax ak ay plan wam ay cadre yu bëri yu nekkoon ci équipe bi daanaka am Covid en l'occurrence Edouard Mendy mi ñuy gis ci ci entraînement bi du ñàkk ñu déglu coach bi ci kanam mais buggoon naa ñu waxtaan un peu ci situation bi parce wax nañ dëgg 28 joueurs la ñu jël mais tey boo xoolee Sénégal 16 lions ñoo nekk tey entraînement ci information yi nga xam ne suñu ndaw ju voilà ñoo mujj nekk foofu mooy moom euh, Mamadou Ndiaye information yi mu ñu jox 15 16 joueurs 14 joueurs de champ 2 gardiens Seny Seny Seny Dia ak ba Alioune Badara yi donc situation quand même bu exceptionnelle la pour le coach Cheikh dans ces conditions la c'est pas évident de préparer un match. waaw man damay wax ni à l'instant tey moo nekk si place Aliou sincèrement <laughs> parce que aussi qu'est-ce qu'on quoi qu'on mooy euh, entraîneur da ngay préparer match si ay fan defay ay automatisme te tey ñi manqué presque mooy am na si ñu am solo ñoo xamante ni moom la Aliou doon liggéey ak ñoom. Mhm. tey boo ñëwee euh, amoo ñooñu pas seulement bi nga demee Cameroun mais bi nga commencé ba léegi mënoo am effectif boo xamante ni. moom nga mën a liggéey mm-hmm. pour defar sa système pour mm-hmm. defar sa idée de jeu mm-hmm. moo tax si eh, ñàkk bi nga xam daan ñàkk ñenn ñi ba mën nañ xaar sax changement de système benn mais mën nañ xaar tam aussi changement d'idée de jeu parce que bu fekkee ñi nga préparé woon pour ñu la doon liggéeyal boobu ba léegi ak automatique yi nga doon def amoo leen donte am nga ay jours yoo xamante ni ña nga fa dina xaw a dina xaw a métti mais je pense que euh, Aliou il doit être assez intelligent pour jouer ci polyvalence su ñi nga xamante ñoo fa nekk ba nga xamante ni dina xam système bi nga xamante ni moom moo adapté wu. par rapport ak caractéristiques joueurs yi nga xamante ñoom ñoo fa nekk. Mhm. Talla est-ce du Sénégal bokkul fi mu ne nii ci équipe yi gën a bi bi Covid bi gën a laal. parce que boo xoolee yenn équipe yi am na ñu amoon Algérie jot nañu mhm. am mais je sens qu'ils ont récupéré franchement Zéro. gestion <laughs> organisationnelle assez impressionnante dinañ ci dellu si waat. Mhm. Sénégal neuf joueurs. mais maam sans compter les cadres su ma doon laaj li may njëkk laaj est-ce que ñun ñu ci moment yi benn coach mental boo xam ne dafay mën a préparer joueurs yi. gën leen dooleel gën leen mhm. motiver. davantage parce que man joueur yi ma leen di gis ñuy wàcc ay bi. mais tu sentais euh, la peur quoi c'est la peur c'est l'angoisse c'est ah, le stress. c'est-à-dire que da ngay da ngay tiit nag nit rek la ñu ah nit day jaaxle da nga naan mais man fu ma jëm ak fi fi fi ñu toll nii et xam nga lu ñu yàgg di wax mental dafa baax ci nit ñu lay ñaax entraîneur bi Cheikh Gueye du ma ci weddi parce que ñoom ils ont beaucoup travaillé moom bi ñu koy xam ci euh, géejawaay mm-hmm. moom ak Daabo Youssou mm-hmm. Daabo mm-hmm. loolu tax na tey ñoom seen bopp résultat yi ñu am. boo leen joxoon benn équipe bu yamamaay sax dinañ ko lijjanti. sur le plan mental ba nga xam ne ñi fi nekk tey dinañu war a mën a répondre présent. bien sûr. Cheikh loolu. loolu lu leer nga wax parce que comme ni may wax rek je pense que aussi sélection bi paraît-il daan naa dégg ni l'adjoint de Aliou aussi. Euh, xam-xam si si yu demee noonu. Mhm. je pense que loolu du ñàkk mu am parce que problème bi mooy du question sax du ñuy tiit mais situation yi bu ñëwee. jours yi parfois da ngay question. Mhm. parce que moi je suis un axe central l'habitude de jour il est absent. Euh, ki nga xamante ni moom laa war a fubal peut-être benn match laa jot a fubaloo ak moom wala ñaari match nekku fi donc kan laay fubal on se pose des questions. on se pose des questions c'est c'est normal mais je pense que lépp si bi ñuy dem si CAN bi waroon nañu pare aussi je pense pare nañ si loolu parce que équipe yëpp la dal du excuse. Mhm. je mhm. que aussi euh, à un certain moment il faut sa adapté wu si lan mooy si situation bu ne këtt ni jonn si entraîneur nga adapté wu si situation boo xam dafa këtt ni jonn si ay joueurs aussi mhm. si staff aussi et je pense que ni équipe bi ñu yor nii ak ñi ñu yóbbu war nañ xam ni adaptation boobu parfois daf leen di dal seen dëkk ba nga xam tey jii même tey bu Sénégal doon jaaxle ba war a fubal 3 5 2 parce que système moo ko euh, dañ koy def bu ñu waroon fubal 1 4 4 2 losange parce que 4 2 3 1 bi ñu daan def aussi ak ñi fa nekk aussi dañ koy def comme pour dëggal li nga wax rek il faut euh, waxtaan na laaj ak benn solidarité boo xamante ni. ak mm. benn conscience de la situation xam ne du ñun rek. ñëpp la ñu mm. parce que ñu koy waxee mais mais Cheikh à ce rythme là je que jar na naa ni test yi sax peut-être jeex na mais tey jii suñu defaatoon ci guddi gi yeneen test décelé waat parce qu'on a que 14 jours de champ suñu demoon ba amatuñ onze joueurs yuy jouer on perd le match ah. 2-0 règlement on perd le match situation gis nu muy demee nii démb ñu noté ay cas positifs. yaa ngi xalaataan yeneen cas contact ci biir ci biir ça ça ça fait ma ne situation bi bëgg moo nekk place Aliou mm. parce que doo liggéey doo liggéey ni nga Aliou Cissé d'ailleurs wax na ko tey ci suba je pense que extrait bi xëy na disponible mais nee na bu mu defee le point par rapport ak match bi mu mujjee joué contre le Congo am na six titulaires yoo xamante ni suba du leen am si feuille de match waaw parce que daf ci compter Crépin Diatta compter ci Ismaïla Sarr ñooñu blessé Edouard Mendy Kalidou Koulibaly des cas positif ak ñeneen ak ñeneen yi ñu wax donc y a deux gardiens yoo xam ne Seny Dieng moo fi nekk ak Fati euh, Fati bon il n'a jamais eu d'expérience avec Alfred va venir euh, dans la soirée mais Alfred depuis dizaine de jours euh, ëpp <laughs> Covid de mais suba est-ce que c'est et puis ça mais loolu c'est c'est problématique Alfred s'il rejoint la tanière tey jii si guddi est-ce que demain tu le fais jouer mm-hmm. c'est une question. Mm-hmm. est-ce que c'est le deuxième gardien je pense que man <laughs> fu may gën a tiite je pense du c'est pas dans l'axe central ni au milieu, mais c'est surtout au niveau des hommes de couloir. Parce qu'on avait l'habitude vraiment de faire mal aux équipes. Euh, si ay couloir euh, on avait des excentrés. Mm-hmm. et des et aussi yoo xam ne danañ apporter lu bari. tey boo amul euh, ñooñu tey xaw metti en plus de cela match yi nga jot a mujj football yëpp euh, Sadio mi nga xamante ni peut-être bu njëkk doon na football excentré mais match yi mujj yi ak Aliou. gis nañ mm-hmm. automatisme yi ñu doon liggéey ak moom Euh, qu'est-ce que ça va se peut-être da koy delluwaat ci couloir bi. Ah. pour ñu mën a pallier absence su ñi nga xamante ni ñoo absente ci couloir wala peut-être da koy delluwaat foofu peut-être indiwaat ñeneen. je pense que man foofu la sama jiixi jaaxa xaw nekk en plus de cela même soo déparé ak ñooñu après sur si banc bi ñan ngay am pour ñu mën a remplacer ces de couloir. Mm-hmm. ça aussi c'est un problème. Mm-hmm. Ah, mais problème yooyu yëpp waaw. yooyu yëpp organisation. non kooku man bon je me dis. Euh, Talla peut-être comme on va à la guerre du ñu. du ñu <laughs> on va pas poser ces problèmes-là. on va pas poser ces débats mais ce qui est sûr c'est que euh, préparation bu perturbé la ñu am. plan bi amoon na plan bu ñu amoon. plan bi ça a été mise à l'eau ñi ngi dem Coupe d'Afrique amuñu match de préparation. vous me direz que Cameroun est dans le même cas am na ñeneen ñu nekk dans le même cas mais aujourd'hui fii la nag peut-être staff fédération ak ñëpp ñu nga xam ne ñoo ngi ci mbir mi fii nag la ñu war a wane force de de de de solidarité. et puis on a quand même des des cadres dans cette équipe heureusement qui sont encore là ku mel ni Sadio Mané pour man tey mooy nekk le porte-flambeau en fait de cette équipe moom tey moo war a yenu affaire yi. amoon mënoon nañ ko dispatcher mais la moom ak Gana Gueye ak Cheikhou Kouyaté ñoo fi mais nañu gën a bunkériser quand même. non loolu moom le mal est déjà fait Fall le mal est déjà parce que tam ñu ngi waaj tàmbali mbir mi hmm. et normalement bu ci yàlla àndee ba le 6 février war nañu teew hmm. donc nag même bu dee le mal est déjà fait. Mhm. warul tax. mën nañu rectifier le ah, tir. il faut rectifier et en plus la longue ah. parce que c'est bien aussi. ñu teel a am sa cas. ñu di waxtu bi que nga bunkériser parce que ñun dañuy mm-hmm. ñeme layam layam. Ah, xaw ma nuñ koy waxee. di maslaa fii ah non ah ba ça moom nañ ko def nekk si délégation bi. est-ce que les autorités dañuy dem ak a ñëw est-ce que loolu yëpp war nañ ko xool tamit dimbali coach bi équipe bi nañu dimbali ngir ah, yàlla ah. nit ñi ñu bàyyi te toog hmm. ku nekk na nga toog ca sa hôtel bàyyi équipe bi parce que aussi tamit ñu ngi koy mu ngi door a dal dafa loolu nañ ci jàng nag hmm, hmm. nañ ci jàng ñu ngi door a tàmbali bu ñu xaar ba dem ba ci biir ba mu gën a sore ñu naan ñi yeneen ñëwaat na parce que ñun sénégalais ñoo ñeme loolu. dañu ñeme mi soow ay wax fii seeti fii maslaa fële dem naa fa demuma fa seeti naa joueur yi gis naa leen. photo yónnee. <laughs> non no non dafa doy. Ah, fi ñu toll nii neexul ba neexul fal loolu foog foog ñu wax ko. Mm-hmm. on ne s'est pas protégé se protégé. ici à Dakar moom. parce que gis nañ équipe bi fii ni mu fi nekkee woon euh, ñu bari am accès ci équipe bi ngay gis ñoo xamee nii dañu am seen vie publique ci dëkk bi di dugg fu nekk su ñëw dugg ci biir équipe bi mais parce que loolu aussi du ñu jaral li jën si la parce soo xoolee euh, Gabon noonu lañ fi def dañoo ñëw ci guddi gi ñu wone Aubameyang ak euh, nu mu tuddati Lemina ci boîte de nuit. waaw ñu filmer leen mais le lendemain dañu leen testé ñu positif. waaw c'est clair. mais léegi Cheikh xam nga comme comme li am am na pour match suba euh, si situation yi demee nii comme ni ma ko waxee peut-être entraîneur bi tey euh, xaw metti si moom surtout travail si terrain parce que amoon say nit ñëpp pour nga liggéey parce que 16 jours parfois parfois bu ñuy def mise en place t'as besoin peut-être de 11 contre 0 de la même chose que t'as besoin 11 contre 11. 11 oui euh, il a pas. Mhm. sur si stratégie aussi parfois nga soxla des défenseurs qui s'opposent à des attaquants. Mhm. mais tey jii groupe bi ak situation bi nekk. Euh, déséquilibre ba nga xamante ni parfois situation yi doo ko mën a liggéey. Mm, mm. léegi li des mooy boo mënul am liggéey boobu si terrain. Mm-hmm. am na aussi ay jumtukaay si vidéo. Mm-hmm. Euh, yu bari yoo xamante ni di nga toog waxtaan ak aussi ay waxtaan. Mm-hmm. comme li ma koy xaral di wax rek njort naa ni waxtaan boobu am na vidéo yi am na ba nga xamante ni donte am nañ ay absence dina mën a bañ a feeñ si match bi nga xam moom la ñuy fubal mais Cheikh xam nga entraîneur léeg-léeg bu amee opposition. léeg-léeg ci def ay aménagement jël kii dugal ko ci groupe bële changer chasuble génnee kii jël kii changer fale xam nga loolu dafa baax ba nga xam ne parce que ku nekk di nga mën a jauger état de forme ku nekk mën a xam fu kii toll fu keneen ki toll bien loolu daf lay permettre nga gën a am ay certitude ci ci li nga xam ne moom nga yaakaar mhm. parce que ba léegi ci moment yooyu ngay gën a mën a ne bon absence u Ismaïla Sarr kii tey war na ko mën a compenser est-ce que lii devant tel défenseur bu amee opposition le gars il va répondre présent nga gis li mu la jox nga ne ah ok ça me rassure donc nga defaat ay changement même bu dee avec les nouvelles technologies di nga def vidéo machin et tout mais la pratique, la sur le terrain ah non mais tey loolu mais boobu comme Cheikh wax situation situation la boo xam aussi bi mooy loolu opposition loolu la lay permettre da lay jox ay certitude mhm. boo doon am ay doute ci dara parce que opposition bi mooy bu kii defee lii def dribble def ñaar ñetti centre objectif yi nga ko fixé woon mhm. ne par exemple war na mën a pallier absence Ismaïla Sarr wala Crépin mhm. kii laa naroon jël léegi war na mën a ne il va répondre présent le jour J donc au moins celui-là ça me rassure côté bii maintenant est-ce que leneen li ma xalaatoon am naa ci li ma soxla ou pa donc yooyu ci moment yooyu nga ko gën a mën a nag xam nga tey doo am doo am mhm. excuse xam nga tax doo am excuse bu fekkoon situation bi Sénégal rek la dal Mhm. tey jii je pense la Guinée a presque cinq positifs aussi euh, mhm. fekk Morlaay aussi positif woon na mais dina dellu si groupe bi tey mhm. je pense Malawi ils avaient parlé l'autre jour de 16 je sais pas si c'est vrai ou pas comme non Gambie Gambie Gambie il avait 16 Malawi aussi ils avaient beaucoup de cas de Covid pour vous dire que ni situation la boo xamante ni peut-être euh, euh, si équipe yëpp la situation bi nekk mais li am solo li am solo mooy quelles que soient les situations ñu mën a adapté wu adaptation comme ni ñu ko waxee bu amee tey tàmbali si dirigeant yi comme ni nga ko sànq dafay bu tàmbalee si dirigeant yi après tey ñëw si si staff bi bu jógee staff bi dafay ñëw si joueurs yi mais si période bi ñu toll nii je pense que joueurs yi nga xamante ni ñoo fa nekk te ñoo disponible je pense ñoo mën a jàppale l'entraîneur. Mm-hmm. Ah, en tout cas demain foog ñu présent mentalement. parce que ni ñu koy waxee ci. Euh, ay vent contraire la ñuy dajeel euh, y a plein d'obstacles te il pas rater euh, sa début de compétition mm-hmm. parce que là on va jouer contre l'une des équipes supposées euh, bon, plus faibles il ah, a Malawi derrière aussi mais il y a la Guinée bi ñuy bi ñuy et jamono ji nga xamee ni on ne peut pas compter sur toutes nos forces vives mm-hmm. n'empêche n'importe quel onze bu bu ñu teg suba jouer euh, war nga wan sa doole répondre présent Zimbabwe mm-hmm. parfois je sais pas moi parfois je suis un peu sur euh, la notion de mental. Euh, mmh. pourquoi. Mmh. Euh, pourquoi je suis sur la notion de mental parce que euh, jour bi boo koy entraîner su fekkee jàngaloo ko solidarité par des principes. Mm-hmm. tactico-techniques je pense jour match boo ñëwee ni ko danga koy kañ pour mu am doole pour mu góor góorgóorlu je pense que ni du mën a dem lu bari. et mm-hmm. parfois ñun la plupart je pense que euh, loolu la ñuy xaw fàtte. et je pense que ni comme li ñuy wax mental dafay exiger parce que doomu aadama doomu aadama mais dafa am football loo xamante ni ay principe tactique défensif que ça soit individuel offensif am ay notion yoo xam ay valeurs ci football yoo xam mooy yokk mental comme solidarité les défenseurs s'ils savent pas faire euh, permutation ou couverture ak lu am am mental. Eh, mais xam nga genre quand on de mental mooy demain tu vas te retrouver euh, ci euh, cas boo xamee ni même cinq remplacements autorisés sax yow doo ko feesal mm-hmm. Mm-hmm. doo doo doo ko am di nga peut-être que ci biir mën nga dem ba am jour boo xam ne dafa gaañu sax <laughs> da koy obligé di <laughs> de solidarité mm. parce que si on est solidaire am na peut euh, mm. kooku su fekkee ñi mu dendal amuñu benn solidarité manquement yi nga xamante ni xam nañ sur le plan tactique am na ko ñun ñu mottali ko après pour revenir que ni c'est vrai que ni mental boobu dina am solo trop. Mm. mais il faut aussi que euh, la notion de solidarité bi nga xamante ni principe yooyu moo la koy may wala bokk euh, comme ni ñuy wax sur le plan physique. il faut respecter le football le football c'est ça. il faut ça, je pense que pour demain mais mais Cheikh léegi qu'est-ce qu'on peut nous demain par rapport ak on que déjà suñu Saliou Ciss c'est notre titulaire. Euh, gauche. gauche voilà moom. il n'est même pas là kenn annoncé ko on annonce Alfred Gomis et Bamba mais Saliou c'est sûr qu'il sera pas de ce match ouais. Kalidou Koulibaly le capitaine ak central ne sera pas de ce match demain ban onze le mën Aliou Cissé war a mën a composer avec ce qu'il a ses joueurs deux gardiens quatorze joueurs de champ moom dinaa jafe parce que sincèrement comme nekkuma si bopp nekkuma si bopp Aliou tey mais je pense qu'il y a Pape Abdou qui est là-bas comme ak central Diallo qui est comme axe central. latéral gauche on a. on a mais, mais, mais moi a... je le mets à gauche. oui mais on a Diallo on a Diallo tout à fait. non on a Diallo mais moi je moi pour ne pas prendre de risque je prendrai Ballo Touré je le mets comme latéral gauche je mets Diallo axe central gauche et Pape Abdou Cissé axe central droit euh, sur côté droite bi je mets. Bouna Sarr Bouna Sarr et s'il joue système bi nga xam moom lay footballé c'est autre chose mais bu doon sama xalaat si on joue un 4-4-2 on met Kouyaté comme moo fa nekk ak ak ak Gana. on décale Diao Baldé si benn côté Sadio Mané si benn côté on met deux avant-centres pour ne pas se compliquer trop après un 4-4 de losange si t'as pas des hommes de couloir très forts euh, un peu compliqué parce que bu fekkee amuloo temps liggéey ko dafay xaw jafe mais je pense que comme ni ko Talla waxee aussi il y a beaucoup d'options jàll mm. comme latéral mhm. gauche aussi y une possibilité. Mhm. mais est-ce que l'antérim parfois du ko xaw a jafeel. te aussi gis na ni moom bi mu commencé nekk ci axe bi aussi on a vu que Sénégal si sortie de balle yi xaw na gën a yomb mais comme ni mu koy wax rek nekkuma si bopp Aliou mais li ñu koy ñaanal moom muy fexe ba nga xam ne léegi suba <laughs> dina am 11 boo xamante ni vraiment dina ko mën a amener victoire. je sais pas Ghana et Kouyaté disponible. la fameuse parce paire, que euh, euh, d'antan <laughs> le fameux duo <laughs> mais je pense que même si tu les as euh, tu as Sadio qui est sur le côté et Sadio ñëpp xam na ni ak technique am ak leader technique bi mu nekk il peut incurser au milieu et faire le jeu. Mm-hmm. pendant ce temps décaler Bouna Sarr parce que mm-hmm. Bouna aussi parmi les latéraux yi ñu mm-hmm. l'un des plus techniques. pour vous dire que y' compétitive. avec des variabilités et des variants yoo xamante ni mën nañoo. mais par contre moi moi que Aliou va-t-il mettre Séni euh, parce que c'est lui qui a fait euh, la préparation. ou comment il s'appelle euh, Gomis qui va arriver. Gomis qui va, qui dans la nuit. je pense que c'est le premier match. Yo, en tant euh, qu'entraîneur, euh, qu'est-ce que tu allais euh, xam nga <laughs> la plupart ñun entraîneur boo fi nekkul xamuñu si li nga nekk peut-être doonte am na staff bu doon suivre mais certitude yi ñu war am yëpp ñu duñ ko am si yow. Hmm. ba nga xamante ni man boobu ñu may doxalee ah quand un jour est absent buy soog a ñëw man par prudence je le mets pas parce que xaw ma woon exactement si lu mu nekk. mais peut-être Aliou xam na góolam si lu mu nekkoon pendant ces jours d'absence. mën na ko teg ko mën na ko bañ a teg. su fekkee xam na la si mu nekk y a pas de y pour mu teg ko même parce que feebar bi aussi du feebar bu lay tëral. feebar boo xamante ni yow amuloo benn signe yaa ngi hmm, entre ça un préparateur en plus jour les joueurs professionnels la plupart ils amènent leur préparateur donc ce qui veut que même s'il était absent avec le groupe hmm. man je pense que amul benn jeexi jaaxa pour mu góol la ko comme am am na aussi bu ko neexee mu ne am naa ay doute aw ma ay certitude yu wóor kii maa doon liggéey ak moom am na lu mu woon ma góorloo et je pense que si on a mené quatre gardiens c' est parce que Aliou wóolu na ko si nekk ba même gardien Casa moi je me rappelle Casa Jaraaf Aliou s' est déplacé de Dakar à pour superviser. le gardien du Casa Sport mm. donc s'il l'a amené en dernière minute c'est parce que wóolu na pour wane nag mm. mm. quatre gardiens yi yóbbu je pense pour le match de demain a nekk sa partie si on apprend aussi que Ismaïla Sarr dafa war a parce que loolu la ñu Barcelone ñu ah. saytuwaat ko pour xool est-ce que dina dina mën a jouer c'est vrai que ni peut-être y a eu un combat de principe avec Watford ouais. sur euh, cette, cette, ce dossier-là mais on peut aussi se poser des questions sur la gestion du cas Ismaïla se rajouter <laughs> benn équation euh, de plus avoir un joueur qui n'est pas forcément il ne s'est pas entraîné il depuis qu'il est arrivé yeah. bon on l'a très mal géré ce dossier-là c'est un entre guillemets c'est pas Ismaïla Sarr mais le c'est un dossier boulet oui mais mais ça ça on l'a très mal géré après sa blessure bi mu génnee les gens ont sorti un communiqué gis nañ ne le match d'après joué wul mais on se pose la question on se déplace on on demande l'avis d'un expert mmh. en orthopédie qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas de figure pour Ismaïla parce que on était très proche de la CAN mmh. et c'est un élément encore de la marge quand même comment mani c'est vrai qu'on était proche de la CAN mais on avait encore de la marge pour pouvoir pour réagir avoir tous mmh. les mm, éléments c'est vrai et on en a parlé ici on en a débattu on s'est posé la question est-ce qu'il fallait même pas dépêcher quelqu'un pour voir sur place nos joueurs qu'est-ce qu'ils sont qu'est-ce qu'ils ont plutôt mhm. et quel est leur état de forme même pour mhm. certains qui sont peut-être blessés mhm. quelle est la conduite à tenir à partir de ce moment mais ñu xam avoir un dossier médical prêt solide ñu xam ne temps de rééducation lii la donc pour mu mën a dellu soir dans un groupe et ça je pense que c'est un expert un, un professionnel moom moo ñu ko waroon mën a wax Mhm. Et à l'une, se permet de faire venir parfois un médecin depuis la France pour intégrer le staff médical, mhm. c'est parce que aussi tamit dafa am lu dafa bëgg lu dal xelam. Mhm. et ñun aussi tamit parfois bu ñu waxee ci loolu ñu ne ñu non mais dañ ko war di def dañu war a jël médecin yi déplacé loo leen dem leen xam leen wax ak jour bi laaj ko mais et puis mais bu ñu ko demandé maam dinañ leen ko may joueur bi mën na leen ne c'est notre équipe nationale ñoom ñoo ñu yóbbu yónni ñu ñëw pour ñu xam joueur li mu soxla bu ñu leen waxee ni dossier baa ngi nii dem foofu seen club ils vont l'ouvrir wax évaluer ko woytu daal di jëf les photocopies qu'il faut mm-hmm. daal di ñëw ak seen ay ay ay ay ay ay euh, rajo mm-hmm. les les les IRM mm-hmm. mais tout tous les éléments après ñu apprécier boo boo sa assurance ah, dañu lay ne il faut bi xam nga dafa xaw doy waar mu waar mooy euh, je pense que euh, lépp ci environnement bi la lu tax mu doon ci environnement bi mooy ñëpp gis nañ ni tubaab yi nangu noonu bàyyi seen ay jour ñu dem je pense ñoom ñëpp minimiser woon nañ kaan bi ba nga xamante ni ku si ne boo sañoon sa jour dem et bu ngeen xoolee blessure Ismaïla Sarr c'est rare nga gis jour bu blessé ñu lay wax ni la tey toog un mois ñu xoolaat je pense que la plupart quand un jour se blesse dañuy wax indisponibilité c'est un mois ou deux mois wala trois semaines trois semaines. mais là donc c'est normal que notre sélection wala bien notre sélectionneur wala suñu staff aussi. am ay doute suñu fédération am ay doute vraiment mhm. jaayante ak ñoom. Mhm. que joueur bi c'est dafa blessé mais nañ koy indi. Mhm. ñu xool ndax wér na wala wérul. mais sur le plan mm, physique je pense un jour bu mel ni Ismaïla Sarr ak. explosivité bi muy soxla pour football ak blessure bi nga xam moom nañ wax lu am peut-être dina jafe pour mu dellu si si camp bi amul lu njëriñ est-ce que ñun moom moi je pense dossier bi euh, tamit parce que c'est Ismaël Sarr c'est vrai il est extrêmement important ah oui, surtout système ah oui, Aliou mais Nous là on joue en compte ouais, mais là bon et, sur ça on attend beaucoup de la vitesse de mais, percussion d'Ismaïla mais vu situation bi ni mu demee nii le gosse soo koy am tu ne l'auras que pour une semaine. Mhm. te en compétition lay doon parce que tey jii mi ngi dem Barcelone ñu koy xoolaat. c'est sûr que su ñëwaatee dina toogaa tuuti le temps que muy reprendre entraînement daw tout ça. mais le plus ki ngay xool ki ki ngay xool aussi. Euh, Sénégal yabal ko pour mu xool. mooy Ramon le docteur Ramon moo ko yabal pour mu xool. xam nga xam nga seen ngay xamee ne Watford dañuy yab. <laughs> a Ismaïla Sarr damm na fii Thiès. ban médecin. moo ko plâtré moo ko faj fii lañ ko fajee defal ko dossier médical se un médecin sénégalais moom moo ko fajee fii tabax ko fii defal ko lépp te bi mu demee ba ñu joxe dossier médical bi à Watford waaw Watford tegguñu ci benn baat lépp lu ñu leen bindal dañ ko nangu donc pour diir que ne am nañu expertise bi fii sur le plan local buñ ci xeeb nag suñu bopp parce que am nañ ko ba mu leer te uh-huh. dama ci am sax tegtal yu ma wóor yoo xam ne je l'ai vécu par rapport à ça mais li Cheikh wax rek je crois que à un moment donné on a raté le coche. il fallait tout simplement dem sur place xoolal ko suñu bopp. bopp ñëw am lu certitude. bu boobaa libération bee tout ça là on ne passe pas la tête avec qui que ce soit day xam fi mu jëm. Mm. et en plus soo xoolee même soo xoolee léegi liste bi ça ça nous pose un gros problème. parce ah. que liste Aliou bi ah déjà à la base dafa manqué woon euh, jour de couloir. couloir là si tu perds euh, Ismaïla da ngay. Hmm? tu réduis davantage tes chances parce que ñun on a empilé on a empilé énormément d'avancées il représente énormément par rapport à notre jeu mm-hmm. dans le jeu que nous pratiquons nous au Sénégal c'est un jeu de compte et on attend beaucoup d'Ismaïla Sarr par rapport à son explosivité sa sa sa force de percussion mm-hmm. donc loolu su la manqué dafay da ngay sa ay atout offensif mm-hmm, mm-hmm. donc di ci xaw a tiit di nga ne mm-hmm. kat kat moo ko war a a remplacer ki koy remplacer lan laa mën a am ci moom yaakaar lan la ma mën a par rapport ak Ismaïla est-ce que dina ma ko apporter à cent pour cent ou pas c'est moins sûr mais au moins dinaa xam kan ak kan laay jël pour ñu mën ko remplacer c'est ça c'est ça mais la dañ koy dañuy obligé gérer ko ak euh, situation ni mu demee nii c'est pas c'est pas évident ah ba muy aéroport ñu euh, ko gis l'ont vu boiter. mooy ñëw te quand tu vois un muy boiter euh, <laughs> tu te dis euh, vraiment pour nga am ko bala compétition bi di jeex. Mm. il va te mm. falloir énormément de chance. mais man xam naa ni joueur la bu amantal comme ni ko Aliou waxee aussi su moom su fekkoon ni mënul am dara lu ñuy jariñ même si fin fin bi peut-être du nangu ñëw peut-être aussi mu nekk waxtaanu. entraîneur aussi pour justifier li nga xamante ni moom la bëgg parce que aussi comme ni ko Talla waxee sànq euh, si idée de jeu wu entraîneur wala si philosophie de jeu bu Aliou Ismaïla ko am solo mm. mais ku xam Ismaïla xam ni gosse bu am mental la. Mm-hmm. je pense que bu dellu seen même bu nekkee peut-être si 60 à 70 pour cent mën nañoo amal njëriñ mais comme li ma waxoon sànq rek jour bu soxla explosivité la. Mm-hmm. buy tëb buy daw. Mm-hmm. te gaañu bi mu gaañu peut-être du ko très bien donc euh, xam naa li si des dañuy xaar guddi ñu li ko ak suba aussi comme ni ngeen ko xamee Sénégal euh, day jouer 13 heures contre Zimbabwe dinañu aussi euh, taataan plus d' infos sur l' équipe zimbabwéenne parce que tamit ah. suba <laughs> <laughs> yaa ko wax yi de dégg nga. Sénégal di jouer heure bi muy jouer la yenn maam yaa ko digg te digg bor la. non c' normal xam nga Sénégal heure bi muy jouer. heure añ la. waaw donc foo añee foofu ngay yendoo. Ah, donc comme heure bi une heure la match bi une heure lay commencé. ñun on se donne rendez entre midi midi et quart midi et demi. suñu paree war a débriefer yendu nañ. dañuy ah, ah, <laughs> yendu añ yàlla nañu am victoire. nga xam ne sa kali daan la wax dara tey de. sa kali daan la wax dara. <laughs> comme ça mu leer ñu nekk que bon voilà quoi yendu bi dina neex. Euh. donc wax euh, na je pense que ni euh, tout à l'heure après le second match euh, dinañu def euh, donc soir de CAN comme ni ma ko waxee je laisserai la place à Cheikh Tidiane Diawo avec ses invités Tall reste avec nous et vous serez rejoint par Assane Sène et Cheikh nous on se donne rendez-vous demain inchallah euh, pour l'avant-match du Sénégal et puis certainement le débrief et donc comme nous sommes à quelques minutes du démarrage du second match nous allons vous laisser aller regarder ce second match en vous souhaitant une excellente euh, donc euh, fin de journée une excellente soirée voilà donc image yooyu xëy na mën nañu ko tëjee rek mooy suñu gars yi suñu dem entraînement vélo yi la ñuy téye ndax foofu dafa dafa xaw a yaatu mais am na loo xam ne aussi euh, peut-être war waxuñu ko et c'est une information quand bu xaw am solo mooy ni dañu nekk ci situation bu délicate te joueurs yi ku ci nekk sa moroom ngay tëddal ci benn nekk te loolu aussi yaakaar naa ni du favoriser. Euh, virus bi tamit euh, dañ donc euh, résidence bi yaatu na complexe bi yaatu na mais les joueurs vivent à deux alors que si bi ñu fi nekkee regroupement ku nekk si benn néeg yow sa néeg nga amoon waaw loolu aussi xam naa fédération bi aussi foog ñu xool ko. parce que waaw il faut mu am. waaw réaménagement parce que bu dee xam ne daal. li ñu xam ne moom moo war a mën fi nekk di wax naan non waruñ ko woon wax non nañ ko wax. wax charia am na ku ma dégg mu ne Sadio Mané moom. jarul warul sax entraîné ji dañ doon di tëj <laughs> su match bi ah, ah, ah. commencé ñu tijji ko mu ji match yooyu mën nañ ñàkk ah non fi mu sax dirigeant yeeg ñëpp joxe seen ay hôtel place ci hôtel mm, mm, mm, bi ñu dem ñu bunkériser bunkériser affaire tëj affaire bi ñëpp dem toog bàyyi ba virus bi génn ñu soog xoolaat ni ñuy def ok merci beaucoup Euh, souhaitez une excellente soirée et à demain. Merci. À demain, Inch'Allah.